ok Serigne du Mbacke yow fii nga jàng ci daara ji école Fallou Galas actuellement yaa ngi euh, université Gaston Berger bu Saint-Louis mais terewul da nga euh, tenir que nga ñëw tey fekkee tewee mbir mi lan moo tax. waaw d'abord ñun ci école bi lañu génne euh, année année bii passé lañ lañ am suñu bac donc ñu orienté ñu université Gaston Berger bu Saint-Louis ku ne xam na ne cant gi toll na am na am na ampleur boo xam ne. Euh, toll na foo xam ne ñun fu ñu nekk fu ñu fekk ci Sénégal rek wala ci àdduna euh, dañoo war a ñëw fekk si ko ndax euh, dèjà année bi passé ñu ñoo nekkoon président ñu ñoo nekkoon jawrin je crois que voilà def nañ ko réussir ko année bi suñu xarit suñu saa yu moo nekk jawrin mu nekk koo xam ne suñu xarit la lool wax dëgg yàlla même bu école bi sax bu génnee cadre école bi ak njàng mi suñu xarit la woon avant donc lu mel ni non seulement moom war naa mën tax ñu fekk sax mais mooy sasi école bi li nga xam ne ji nañu ko donc war naa mën a tax ñu ñu ñu ñu fekk lii donc loolu moo tax ñu ñëw. ok geste bu nu mel nu nga ko mën a jàngatee. waaw geste bu noble la ah geste bu salutaire la boo xam ne euh, war naa mën a inspirer euh, ñu ci des ñu ñëw euh, ñu ñëw def lu mel nii parce que ñu nekk ci biir prison bi ñooñu suñuy suñuy frère lañ suñuy suñuy xarit lañ li leen dal nii tey. mën na daal ku ne. na dal ku ne effectivement mën na dal ku ne parce que euh, niil ne à l'abri de la prison. te l'islam loolu la digle. l'islam loolu la loolu la parce que euh, déjà ay ay ay kàngam ci biir l'islam ku mel ne Cheikh Ahmadou Bamba def na sept ans de prison ku mel ne Mame Cheikh def na prison et moom moom def na def na def na prison. même boo xoolee tamit ci kàngami adduna yi ñi nga xam ne tey mujj na nekk ay ay def nañ prison mën naa cee citer ku mel Nelson Mandela def na 27 de prison. donc je crois que voilà ñoom suñu suñ lépp lañ bu nekkee bu leen suñu borom tegee natt bu mel ni war nañoo mën a ñëw. jàppale leen euh, leen feeñal suñu solidarité ak ñoom.